bismillahi rahmaani rahim waaw alhamdulilahi rabil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diini iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu ihdina siraata almustaqima siraata allazina anamta alayhim xayri almahdubi alayhim wala daalina rabbi israx li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di jiital ci nuyoo booba sahibul fadila sëriñ tubaa sëriñ sidi muxtaar mbàkke di ñaan yàlla sunu borom mu yàgg fi loolu te ak njabootu sëriñ tubaa gépp ginnaaw loolu ñu ngi ñaanal sëriñ cheikh jëmb xalifa maam cheikh ibrahima fall ak mboolem waa kër maam cheikh ibrahima fall ñëpp rek ci bis bu màgg bi ñu nekk muy yoor yoorub màggalu Touba ñu may nu tuuti ak digloo ngir alxuraan ak ndax bis bi bisub sant la waaye bisub ñaan la te addi jëpp afdalul haddiyati haddiyatul alxuraanul karim wa xasaidul kiram li cheikh ahmadul xadim addi yëpp bi ci gënal Serigne Touba mooy alxuraan kasida xasiida te lii mooy wàccaay wi nga xamante ne mboolem kuréelu culturel yi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi ñoo ko doon waaj di ko wàccaale li jëm ci màggalug fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ginnaaw loolu ñu leen biral lim bi nga xamante ne jàngal nañ ko cheikhul xadim muy addiyeetu addiyee sëriñ tubaa ak rasulillahi sallallahu bi ci jiitu mooy alquranul karim muy téerab sunu borom bu sell bi di téerab sëriñ Touba dem na ci téeméeri kaamil tey jii ci suba jàng nañ fukk ak juróom ak juróom-ñett fukki kaamil ak juróom yéen jàng waaye xam ngeen ci ndigalul sëñ Yaxooba ak sëriñ Cheikh Saalihu mooy lim yi fi daan jàng at mu jot rek dañ ko doon jànge wala dañ ko doon barkeeloo ci ati sëriñ Tuubaa yu ci saahir muy juróom-ñaar fukk ak juróom lim yooyu moo doon lim yi nga xamante ni moom lañ fi daan baaxoo jàng waaye ren kaamil yi dem na juróom-ñett fukk ak juróom ak fukk ak juróom yéen fi jàng muy téeméeri kaamil loolu ñu ngi ko def addi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ak Cheikhul Khadim bu dee lu jëm ci xasaayidul Serigne Touba yi muy lépp di salaatu ala nabi ñu addiyaale ko Serigne Touba tey siirul asir fii salaati ala basiri nasir jàng nañ ci 350 mafatihul bisri wal amn wal jann fii salaati wa taslim ala muqimi sunna jàng nañ ci mat 350 matlabul ni jàng nañ ci 150 ma muxaddamaatul xidma fi salaati ala nabiil basir jàng nañ ci 90 nuuru daaray ni fi xidmatil xaami anil jàng nañ ci 250 150 jaalibatul maraaxib fi aajilil ka aajili raaxib jàng nañ ci 150 mawaahibu naafic fi madaay saafici jàng nañ ci 450 muxaddamaatul amdaax fil masaayal miftaax 350 wala xad karam naa bani aadama 250 jësbul xuluubi li allaamil xuyuubi 250 wa kaana xaqan alayna nusrul muminina 350 matlabu sifa yi 450 xasiid ak sindiidi 500 jaawatu bil furxaani 500 tuxfatul mutadarriina 300 rabi bi ma yashrahu 400 bismillahi 200 zikrullahi téeméeri junni la ak ñaar fukki junni ak ñeent la woon lim bi mat na salaatu ala nabi téeméeri junni ak ñeent euh, téeméeri junni la la doonoon ak ñaar fukk ak ñeent mat na istixfaar yi loolu la doonoon lépp mat na kon diggante alxuraan ak xasida lim yin ci sàkk woon yëpp mat na ba teg ay lim yu baree baree bari waaye loolu ñi ngi ko def lépp rek addiyatu rasulillahi ak addiye seexul xadim akbaru diwaanul bàyyil xadim kon buñ boolee lim yooyu yëpp rek ñu boole ko nag tëje ko xat mu yoor yoor bi nga xamante ne mooy xat mu mboolem téeméeri kaamil yooyu di addee Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimu Rasul kon ñu ànd ñun ñëpp rek bokk teewlu ñaan ci barkeb alxuraan ak xasiida mu nekk leer goo xam ne leer alxuraan la ak see ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa ak seexul xadim ak mbokki mboolem bépp jullit boo xamante ne euh, génn na àdduna ci leeru alxuraan googu mu fekk la fa nga nekk ak def ba pare yàlla ñu ñaan ñun suñu borom ci barkeb alxuraan ak ci barke bis bi bépp réew boo xam ne réew julli la te euh, euh, ñu nekk ci fitna yàlla na Serigne Touba teggi yàlla na yàlla teggi fitna jooju ci barkeb Serigne Touba tam jeexal ko tàkk tam dëggaj fa ci barkeb Cheikhul Khadim ci barkeb màggaluk Touba gii ñu nekk di yor-yor bu mat a teelu bu mat a ñaan ndax yor-yor la boo xamante ne ci la lislaam sige woon ci la lislaam amee woon kon bismillahi rahmaani rahim sadaqallahu mawlana al asim wa balaga rasuluhu al wa nahnu ala ma xaala rabbuna wa xaaliquna wa rasiquna wa mawlana min alsahidina allahuma rabbana taqabal minna xatma alquran wa tajawaz anna ma kaana fi tilawatihi min zahwi wa nisyaani aw taxrifi kalimatin aw mawdiciha aw taqiri xarfin aw taqdimin aw taqirin aw ziyadatin aw nuqsaanin aw tawilin ala gayri ma anzaltahu aw raybin aw zakkin aw taajilin inda tilawatihi aw kasalin aw suratin aw sayqin lisaan aw wuquufin bi xayri waqfin aw idgaamin bi xayri mudxamin aw izharin bi xayri bayaanin aw maddin aw tasdiidin aw hamzatin aw jasmin aw iraabin bi xayri makkaanin faktubhu mina ala tamaami wal kamaal wal muhazzabi min kulli alhaan faxfir lana yaa rabbana yaa sayyidana laa tuaaxisna yaa mawlaana warsuqna fadla man qara'ahu muaddiyan xaqahu ma al a'daa'i والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تحتم لنا بالسر والسخاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الخفلة والكسلان وأملنا من عذاب الخبر ومن سؤال المنكر والنكير wa min akli didaan wa bayih wujuucana yowma albaasi waxti riqaabana min anniiraani wa yamil kitaabana wa yasr xisaabana wa saqil miisaanana bilxasanaati wa sabbit aqdaamana ala siraati waskina fi wasati aljinaan wa arsuqna jiwaara sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam wa akrimna bi liqaaika yaa dayaanu istajib duaana bi xaqi tawraat wal injil wa sabuur wal furxaan wa aatina jamia ma saalnaaka bihi fi zirri wal iclaan wa zid min fadlika alwaasi bi juudi bi juudika wa karamika ya rahimu ya rahman allahuma salli ala sayidina muhammad saahibi sariati walburhani bi rahmatika ya arhama arrahimina allahuma anfana wa arfana bilqurani alazim ayati wa sikri alhakim wa taqabal minna innaka anta samiu alalim wa tub alayna innaka anta tawabu rahim allahuma zeyyina bi zinati alqur'ani wa akrimna bi karamati alqur'ani wa albisna bi qilati alqur'ani wa aafina min kulli balaa'i dunya wa asaabi alaxira bi xurmati alqur'ani wa adxilna aljannata ma alqur'ani wa arham jamia ummati sayidina muhammad bi xaqi alqur'an allahuma ijal alqur'ana lana fi dunya xarinan wa fi lxabri munisan wa fi lqiyamati shafian wa ala sirati nuuran wa ila aljannati rafiqan wa baynana wa bayna annaasi sitran aw hijaban wa ila alxayrati kulliha dalilan wa imaman bi fadlika wa وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن خلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة wa bi kulli suratin salaamatan wa bi kulli jusin jazaan wa bi kulli xisbin xasanatan wa bi kulli nisfin niamatan wa bi kulli rubcin rifcatan wa bi kulli sumunin sanaan allahuma ursuqna bil alfi ulfa wa bil baai barakatan wa bi taai tawbatan wa bi shaai sawaaban wa bil jiimi jamaalan wa bil xaa'i xikmatan wa bil xaa'i xilaanan wa bi daali dunwan wa bi zaali zakaan wa bi raai rahmatan wa bi zaayi sulfatan wa bi siini sanaan wa bi siini sifaan wa bi saadi sidqan wa bi daa'i diyaan wa bi taa'i tahaaratan wa bi zaa'i shafaran wa bil ayni ilman wa bil gayni ganaan wa bil faa'i falaaxan wa bil xaafi qurbatan wa bil kaafi kifaayatan wa bil laami lutfan wa bil miimi mawizatan wa bin nuuni nuuran wa bil waayi wuslatan wa bil haa'i hidaayatan wa bil laami alifi liqaan wa bil yaa'i yusran wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa aalihi attahirina ajmaina allahuma balig sawaaba ma xara'naahu wa nuura ma talawnaahu ila ruuxi sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam wa ila arwahi ashaabihi radiallahu anhum ajmaina wa ila arwahi jamii al anbiyaai wal awliyaai wal mursalina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ixwanina wa asdiqaina wa asatisatina wa masaixina xassatan wa ila arwahi jamii al muminina wal muminaati wal muslimina wal muslimaati al ahyaai minhum wal amwaati ajmaina ammatan wa ila jamii ashaabi alxayraati min al muminina wal muminaati allahuma unsur man nasara diin waxzul man xasala almuslimina amin ya rabbal alamina bi rahmatika ya arhamar rahimina bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala nabiyika almustafa wa rasulika almurtada wa waliyuka almujtaba wa aminuka ala wahyi samaayi wa ahyina ala sunnatihi wa amilna ala millatihi wajcalna min ahli shafaatihi waxzurna fi zumratihi wa asqina min xawdihi wa asqina min xawdihi ya arhamar rahimina ya rabbal alamina allahuma ijcal sawaaba xiraati haasihi liman jaaltana sababan li ijtimaina haza wa aatihi bilqurani fi qabrihi alsiata alwaasiata walxujjata albaaliqata walxawlu saabita wa nuura almustabina fi lahdi almuslim wa jaafi alardi an janbihi wa rahamhu waxfir lahu wa liwaalidayhi ya zaljalali walikram ya arham arrahimina ya rabbal alamina allahuma aatihi bilquran alamna yowma alfasai alakbar walraha inda siddati wa tasqiili almisaani inda alxifati wa taysir alxisaabi yowma alusrati الرحمة والورود إلى رحمة والمغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ما أتاك به من حسنة فتقبلها وما أتاك به من سيئة فتجاوز عنه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل صواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة wa rahmatan mutasillatan minka ila ruuxi abduka cheikh ahmadou bamba mbàkke xaadimu rasul allahuma ijcal sawaaba maa xara'naahu wa barakata maa talawnaahu min kitaabika al aziz hadiyatan waasilatan wa rahmatan mutasillatan minka ila ruuxi abduka cheikh ahmadou bamba mbàkke xaadimu rasul barke Cheikhul Khadim allahuma ijcal sawaaba maa xaranaahu wa barakata maa talawnaahu min kitaabika alasiisi hadiyatan waasilatan wa rahmatan mutasillatan minka ila ruuxi abduka Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké xaadimu rasul آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين اللهم أوصل صواب ذلك إليه واجعل نورا يسعى بين يديه اللهم أكرم به مقامه ويسر به حسابه وداعف به ثوابه واجعل رحيف المحتوم سرابه allahuma anis waxdatahu warxam xurbatahu wa tajaawaz an bi fadlika wa juudika wa karamika ya arhamar rahim ya rabbal alamina allahuma tawaffana la muslimina la mubadilina wala muqrinina wala fatinina wala maftunina amin ya arham arrahimin ya rabbal alamina allahuma salli ala sayidina muhammad alfatixi lima uxliqa walxatimi lima sabaqa nasiri alxaqi bilxaqi walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadri wa miqdaari azim bismillahi rahmani rahim alif lam mim innama sabilu wala tujadilu allahu min kulli karimin akramahu man amahu an xaada lahu takarumu aslim lahu kullak an il imani wala si min ihsan li rahmani wajihu bi sukri bila kufraani takku fi islam maa nihraani barke borom Tuubaa